ay ca mbokk yeeg xarit yi lu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme niñ ko baaxoo di defee altine bu jot ci waxtu wi lay ñu ñëw ak yéen nag ci l' émission des émissions l' émission des émissions nag bu ngeen ko déggee ngeen xam ne man ak Sa Ndiogou Meng ñoom ñoo fi toog rek daal di fas yéene waxtaanee li nga xamante ne ni moo ne ci penc mi te gars yi di ko àddu muy seen i xalaat ci euh, li nga xamante ne ni rek mooy actualité ci jamono ji ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag ziar leen ñaanal leen jàmm ju sax dàkk nuyuwaale waa Thiès ñaanal bu baax baax sëriñ Sidi ma sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wasaare ko ci biir këram te koy ñaanal mbooleem xalif yi ci biir réew mi yëpp mu ngi noonu ñu nuyu ko nag moom Ndiogu Meng tey nag Lacoste la def bu rafet macha allah sañse bi rafet na maa ngi lay nuyu di la ziar. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaan ci yow. di dem ba Touba nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar bu wér a wér nuyu sëriñ Xaadim. ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi teewlu ñoom moo du nekk ci technique bi. Mm-hmm. ak Tobak Ablaye di nuyu son yi boog Assane. asal na seen ah, <laughs> tey de la ma wax nee na nañu ah. loolu la ma may tey. <laughs> tey foofu la Assane génn quoi. fële ñu ngi leen di nuyu ñoom di leen ñaanal jàmm. di nuyu Ndaya. Mhm. Eh, ñu nga fa ñoom ñëpp. ak ñoom Omar tout le monde ñëpp ñu ngi leen di ñu bu baax a baax euh, ñoom euh, ñëpp nag euh, di wax ne nag comme nuñ ko baaxoo di defee tey ji suñu waxtaan du doon lenn rek lu dul di xew ci diggante weekend bi ab dumbo yëkkat ci ay kàddu jëmale ko nag ci son excellence Diomaye Diakhar Faye nee na nag moment bi nga xamante ne nii euh, waa nord bi ñu ngi yuuxu au moom nag deful lekk lu dul jël avion di aéré ci kaw mel ni kuy ñaawal askan bi nga xamante ne nii ñoo nekk ci jafe-jafe. di sàkku itam euh, taxawaay bi nga xamante ne nii ñoom opposition bi am nañ ko ngir rek ñu daal di libéré ki nga xamante ne nii moo di Bougane Gueye Dany ginnaaw bi mu nekkee ci ay jafe-jafe Pape Djibril Fall ñëwaat ba tey ci li xew noonu ci euh, doxalin bi nga xamante ne nii ñoom euh, dañu ko ñaawlu. jëm nag ci force de l'ordre yi téye gi nga xamante ne nii tee nañ ko kii di Bougane Gueye Dany nee na nag mi ngi rafetlu taxawaay bi nga xamante ne nii ñañu seeti woon ñu di waa Bakel euh, am nañ ko nee na nag li ñu wax rek du lenn lu dul rek di euh, wax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy nekk ci nguur gi que ni buñ leen dimbaliwul nañ leen bàyyi ñi nga xamante ne yéene nañ leen ko ñu ñëw defal leen ko ak yeneen ak yeneen ba tuddaale ci Ousmane Sonko Abdoulaye Wade ak Macky Sall diggante yi nga xamante ne jotoon na fi jaar jeexalee ko ci moom président de la république du Sénégal muy Diomaye euh, fay ab vidéo bu mu defoon fii ci Walfadjri ab invitation bu nga xamante ne ni jëm na ba tey ci daani moom mu moomule ni euh, jamono yi euh, président bi fi nekkoon di maître di ab ab euh, Macky Sall doon def fële ca noo ba moom itam buggaan daal di topp ko rek def tibb tànkam nee na Sonko ba mu ko jotee la mu ko wax moom la ñu doon expliquer ci vidéo yooyu nga xamante ne ni moom moo xëy tey di def tour ci réseau yi looloo fas yéene nekk suñu waxtaan tey dañ koy dooree ak ab Mbow nekk député bu APR nekkoon député donc kàddu yi nga xam ne ne yëkkati na ko jëmale ko nag ci xew-xew yi fii am. ak président de la république mi nga xamante ne ni ŋàññi na ko ñu dem seetaan ko te dellu si. président Bougane Gueye Dany sans condition et sans délai parce que loolu mooy li nga xam ne moo war am parce que jamono ba nga xam ne président de la république moom nee na dem na Bakel waaye ñaawal population yi ndax hélicoptère la jël daal di ne day survolé ñi nga xam ne ñoo am ay sinis ñoo ñoo sinistré xam nga loolu mooy ñàkk worma ci doomu aadama loolu mooy ñàkk compassion mais loolu aussi moom mooy ñàkk xam nañ la ñu yore état parce que même bu fekkee ne tële nañ te loolu ñëpp xam nañ ne tële nañ même bu fekkee ne mënuñu ñëpp xam nañ ne mënuñu bu fekkee ne tas nañ yaakaar ñëpp xam nañ ne tas nañ yaakaar ñu mën a dem sax nuyu nit ñi saakoon teg ñoom mais ba ñu yoree nguur géeg léegi arrogance la ñuy wane suffisance la ñuy wane tële la ñuy wane ak wax yu ñaaw sos parce que li ma yàgg di wax sos moom boo defee ba jot jot réew mi munoo sos ba defar réew loolu mooy li nga xam ne moom la coalition yi nekk ci opposition bi yëpp dajaloo exiger la libération immédiate et sans condition de notre camarade le président Bougane Gueye Dany je voudrais Aïcha mi ngi noonu kàddu yooyu la yëkkati moom Abdou Mbow alaaji dégg nga la mu wax jëm nag ci président de la république ak euh, taxawaayu bi nga xamante ne ni ñoom taxaw nañ ko tembe rek ngir ñu bàyyi kii di Bougane Gueye Dany waaw xam nga <clears throat> Abdou Mbow moom Euh, terrain politique bi euh, fekk yaa ngi fiy gis ñu mel ni Abdou Mbow euh, yaakaar du am hmm. waaw parce que politicien d'abord li njëkk mooy da nga war a am xam-xam parce que boo aspirer pour nekk yor ay ndomb tànk yoo xam ne da nga war a doxal da nga war a am xam-xam mais genre Abdou yi ñoo lay wan rek Euh, réew mi fi mu nekkoon maanaam suufe ki nga xamante ni bi réew mi suufe woon na ko parce que bu ñu demee ba ne la tey jii ñu nga xool Abdou Mbow ñu ne la personnalité la woon ci nguur gi fi jóge loolu daf lay wan rek euh, image liñ fi bàyyi tey parce que warul nekk parce que Abdou Mbow mii boo ko xoolee da ngay sax sikki sàkka waxuma la jox ko ab kii mu koy yor mais danga naan est-ce sax mën naa yor jiite kër. Ah, moom Abdou Mbaw ndax la. xam nga suufeel sa bopp mi ngi démarré di wax ci lu ñëpp xam wax ci façon mu wax gi du ki ngay waxal moom ngay kii mais da ngay suufeel sa bopp nit ñi dañuy xam yow yaay kan parce ñëpp gis nañ président dem na ñëpp gis nañ wàcc wax ak ñi nga xamante ni ñooy population ba ñëpp gis nañ yitte ji nga xamante ni bi jox na ko bërëb ba ak jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ki débloqué nañ enveloppe bu huit milliards ngir fas yéenee taxawu ñi nga xam ni ñoo nekk ciy jafe-jafe bu taxawee ne dafa dem di leen ñaawal xam nga façon politique yu dofe yi baaxut politique dafa war a booy booy politique danga nga war a nite dafa am moment boo xam ne du moment politique mais dafa am moment boo xam ne da ngay bokk ak mbir mi boo demee tey jii Amérique jafe-jafe yi nga xamante ni bi am na muy catastrophe yu mel nii yoo xam ne sax moo gën a garaaw li yàlla ñaanuñu yàlla lu mel noonu am fa mm-hmm, mm-hmm. mais dangay gis ni politiser wuñu ko boo demee France da ngay gis ni duñ ko politiquer dafa am moment bu ñu war a politique ak moment boo xamante ni kenn waru cee politique mais boo jëlee moment bi nga xamante ni kenn waru cee politique nga di ci politique da ngay soof nit ñi te loolu moo tax façon nit ñu mel nii di leen gis wër na yàlla day naqari sama xol parce que damay xam ni ñu mel nii dañ moo tax il faut écarter façon yu mel nii bi nga xam dootuñu amati ci monde politique bi parce bu ñu ba sénégalais bu ne xam. li war parce que kenn du jël jafe-jafe yi ne da nga ciy jéem a wut lenn li te loolu mooy li nga xam ne moom lay def nii fi mu toll nii bu dee defe na ni wax ji luy tuutal président la déedéet lu koy yëkkati la parce que li nit ñi gis gis nañ ko dafa am lu ne fàng nit ñi gis ko ñu gis taxawaay bi nga xam ni moom la nguur gi di taxaw ci yëf yi waa dëkk ba gis ko ñépp gis ko boo bëggee suufeel mbir moomu yow yaay suufee donc euh, façon nit ñi vraiment. di wax ci seen wax sax. <laughs> moom li mu euh, gis bokkut ak li ngay wax de. nee na ñoom ñëpp xam nañ ni dañoo tële mënuñu. moom gis gis non non xam nga ñoom moom dafa xamut ku xamut nag mënuñoo wax ku tëlee ku tëlewul. Hmm. parce que xamut nag jéem a xam d'abord ba pare soog a wax mais day wax te xamut hmm. kii wax te xamul nag lu yàq moom. parce que xamul ba noppi di wax. donc na bàyyi ba xam na jéem a dem ba xam bu xamee ba pare mu soog a ñëw ñun dañoo xam ñun ñu toog di déglu. dañoo xam léegi nag ku xamul moom bu bekkee moom moo ñëw ngir xamal ñu la problème day am. nee wu immédiate bu bu bu buggaan la ñuy sàkk ñoom opposition bi na libéré immédiat moom loolu yomb na <laughs> tëdd sa kër naa ah, libéré xëy na mi ci yoon bi dana fekk ji ah, gars yi yow <laughs> yow yomb na yor micro ne libéré immédiat loolu yomb na leeral c'est facile loolu ku ne ko man Abdou Mbow ah. <laughs> loolu moom ku ko man mi ngi noonu jërëjëf euh, am na solo kàddu yi alaaji euh, Papa Djibril Fall moom itam ba muy yëkkati ci kàddu yi ma nga woon foofu ca diwaanu Bakel di ñaawlu doxalinu force de l'ordre yi te bi nga xam ne nii te nañu ko seen euh, nattango boobu ci Bougane Gueye Dany ak lam ca wax ñu dem xooli ko te dellusi ñoom bi ñuy ñëw démb dañ leen waroon a jalonel dañ leen a waroon a tertu dañ leen waroon a tatagal dañ leen waroon a sagoo ndax am na ñeneen ñu leen ko gën a mën waaye leneen la ñu tànn am na ci ñeneen ñoo xamante ni ci ñoom la gën a yell waaye ñoom leneen la tànn donc ñoom ñu tànn jël li ñu am boole ko consacrer seen temps xam ngeen ne fi jegewul donc euh, daal di jël li nga xamante ni dajale li nga xamante ni moom la am indi ko ngir jébbal ko askan wi mu néew ak mu bari loolu jàpp naa ne li ñu leen fayee démb gàcce gu mag la. te képp ku am xarit bu nekk bitim réew képp ku am xarit wala mbokk bu nekk bitim réew démb jot nga message yoo xamante ni dañ lay laaj lan moo xew qu'est-ce qui se soo leen waxee li xew dañuy téye seen gémmiñ ndax juróom benn weer ci ginnaaw rek euh, wala juróom weer ci ginnaaw lu mel noonu moo dajale woon sénégalais ci benn combat pour une cause boo xamante ni dafa transcender doomu aadama yi maanaam dafa gën a kawe nit ñi képp koo xamante ni nekk ci situation boobu valeur yooyu day jógaat taxaw valeur yooyu nag ay doomu aadama ñoom ñoo koy incarné euh, te loolu moom moo ñu gën a kawe ñun ñëpp donc je pense que li xew gàcce gu rëy la dignité am ndax ñu ko bëgg a entamer donc ñu gis ne li nga xamante ni moom moo xew mooy c'est un otage politique c'est tout c'est-à-dire xew c'est très politique ke ba nañu waxe woon Senghor moo jàpp jax waxe ko ne euh, Abdou Diouf moo jàpp Abdoulaye Wade waxe ko ne ko Abdoulaye Wade moo jàpp Idrissa Seck waxe ko ne ko Macky Sall moom moo jàpp Karim Wade jàpp xalifa Sall jàpp Sonko Sonko la ñu ko daan def la ñu utiliser woon la justice instrumentaliser la justice aujourd'hui on a instrumentalisé les forces de l'ordre pour téye Bougane Gueye Dany te jàpp nañ ne malheureusement euh, boo gisee lu communiqué de la gendarmerie da ngay xam ne c'est un communiqué à charge. waaw Alaaji dégg nga de la mu mujjee wax mooy communiqué bi nga xamante ne ni gendarmerie génne nañ ko euh, ñoom daal bëgg nañ wax ne daal dañ ko chargé trop ba euh, li am ak li li ñu bind ñoom dafa mel ni dafa am différence. waaw xam nga Babou Diouré Fall dafa am fu mu démarré. Hmm. maanaam li mu wax daf ne lii lañ doon xeex liñ doon xeex moom bokkutoon ci ñu ko doon xeex ah Bougane bokkutoon ci ñi ko doon xeex Thierno Bocoum bokkutoon ci ñu ko doon xeex ah lu tax alaaji nag yow tamit ñoom kenn bokkutoon ci ñu ko doon xeex ñoom ñëpp day xeex bi kenn ko xeex ñenn na ko xeex mooy waa Pastef ñoom ñoo xeex seenu xeex ànd ceeg askan bi ëpp ñu bokk xeex benn mbir li leen li koy la preuve mooy ñoom ñëpp àndaat nañ nit ñi muy jaaxal mooy ñi xamut mustoon a xam ni ñii soos la ñoo ñànkatan ah waaw dañoo jekki-jekki ñii ne man duma soos ñii ne ñoom duñ ñànkatan jéem nuru nuru lu leneen waaye ba ñu wërngëlee ñoom ñëpp dajawaat nañ bokkaat même combat parce que liñ doon xeex ñoom mooy lii du ñëw mooy Ousmane Sonko jomaay mii tey du ñu nekk ci réew mi loolu lañ doon xeex ñoom ñoom buñ jéem a jaxase xeex bi. ah mais yàgg nañu ñaaw lu doxalinu président Macky Sall de loolu. wala dañ doon simb c'est mais bi yëf yi leeree doxalee nen neneen nu wuuteeg. lañ gëmloo woon nit ñi mooy liñ la doon wax lii ñoom mus ñoo bokk ci li xeex injustice bii yaa ngi dégg musuñu cee bokk Pape Djibril mës nga koo gis buntu kër Ousmane Sonko li ñu ko barricade yëpp mës nga ko faa teg bët ah ngaa dégg mu wax ci dara au début de doon na ci wax au début bi muy wut ay nit waaw di wut ñu koy partager di wut ñi nga xamante ni bii tey ñoo ko defal ñu jëlee ko 2S indi ko TFM ci wut crédibilité ñoo ñu jox ko ko bi mu génnee moo tax ma ne ku ko solal mbubb mi parce que ba mu génnee gis nañ doxalinam. Mm-hmm. tagg bu ne tagg na ko fi Ousmane Sonko. Mm-hmm. tey jii bi muy lim sax ci tur yi ki waral lii yëpp tey ñëpp gis nañ ni liñ fi teg Ousmane Sonko kenn mosu ko teg politicien ci àddina mm-hmm. le fait nga koy comparer ak ay liñ teg ki sax yàpp yàpp ko la. parce que injustice mm. yaa ngi dégg Karim Wade mën nañu wax ne dafa jiite woon dara ci loolu lañ ko lang-langalee Khalifa mën nañu wax ne dafa jiite woon dara mais Ousmane Sonko ci lan lañ ko tegee liñ ko teg. ay tuuma. tuuma yoo xam ni ka ko tuumaaloon sax wax na ba setal ko ba wax ni moom dara amu ci donc nañu delloo si waat xel yi ñoom ñëpp yaakaaroon nañ ni réussir nañ parce que biñ demee ba exclure Sonko ba xam ni léegi dootul bokk far Sonko dugal jomaay loolu moo leen jaaxal defoon nañ ni loolu mënut a nekk ci wàllu politique far loolu nekk. waaw ah, nee na waa Bakel dañoo rafetlu ñëw bi ñu ñëw. bay ŋàññi ñee ne buñ ñu defalul nañ ñu bàyyi ñi mën ñëw defal ñu waa Bakel waxuñu loolu waa Bakel ñoom gisuñu waa Bakel buntu Bakel lañ taxaw lañ leen jàppee ñu naan waa Bakel nee nañ xam nga loolu mooy yàpp nit ñi quoi yàpp waa Bakel ñuy wax sax diffamation parce que dañoo waxal waa Bakel loo xamante ni bi waxuñu ko hmm. ah oui ñun yaakaar nga ni Pape dina wax lu nga xam ne xam nga ma jigéen waaw ah. am réew day dox ci ay règles gis nga catastrophe yi di am nii du nit ki da ngay ñëw rek mën a bëgg a dimbali nit ñi rek ñëw yenu ay bagages rek ñëw joxe demeewut noonu est-ce que comprendre nga dafa am organisation dafa am yëf yi nu muy tëddee bugaan mii tey bu fekkoon ne la muy def. àgg na daf cee jublu dëggantaan ngir dimbali waa ba xam na yoon wi muy jaar pour dimbali leen. Mm. fii la fi dajale xaalis bi waxee mbënn mi ubbi teleem bi nit ñi ñëw di joxe xaalis. ba mu dajalee xaalis ba pare dañoo woo mu ñëw constaté ñu wax ne nangam mat na ko ci xaalis ñu yëkkati xaalis boobu jébbal ko ministre de l'intérieur ngir ñu jàppale mbënn mi mais dangay dajale fii nga ne da ngay dajale yaa ngi dem yaa ngi eh, séddale gis nga ci convoi ba yow lenn ay nit ñu dugg ci seen 4x4 nga gis. amee ah, ne nañ xaalis la ñu yóbbu. xaalis la ñu yóbbu kuñ mais am na fuñ ko joxe am nañ fuñ ko joxe. doo ñëw rek dëkk ba naan ñëw leen wër leen ma ñooñu daje di kii pëcc xoo du noonu la ñuy def déedéet yooyu finalement sax mën nga fa indi sax insécurité. Mm-hmm. imaginez ñu dem ñu yoroon seen maletu xaalis ñëw toog naan waa dëkk ba ñëw leen ñu jàpp mais mën na fa indi. désordre boo xamante ni bii kenn xamut lan la. lu ne mën na caa mm-hmm. loolu état dina seetaan loolu. déedéet ñaareel bi. waa ji ñëw def jalgati gu mat sëkk forcé kiiwu gendarmerie yow ñaawlu woo loolu. nga bëgg a taxaw ne ñii est-ce que ñii war nañu xalaat ñu jox leen am réew Ousmane Sonko biñ ko ko fi defee fii. Mhm. ci kër góor gi. waaw na gendarme yi. déedéet wala policiers yi fel na leen. jàll. wax na ak ñoom dellu. lu ko tere mu dellu war a dem julli ji. ñu waxtaan ñu ñu wax ak moom. lu ko mm-hmm. tere mu dellu. Mm-hmm. mais yóbbu say caméra yóbbu say kii di filmer may mu naan li gendarmerie wax. li gendarmerie wax loolu bu ko weddee ñun dañ koo gis. te ñoom ñoo ñu wan. nee na de dañ ko chargé communiqué bi. chargé nañ ko li ñuy li li gendarmerie wax yow gisoo ko. ah moom moom lañ gis. waaye gis nga ko wala gisoo ko gis naa ko lan lañ fi chargé moom bu mu ne li gendarmerie wax moom kañ dafa war a wax ne li ñu gis dañ koo chargé li ñu gis dañ chargé parce que loo teg sa bët la ñoom ñoo ko filmé mu forcé ne kan moo ne leen joxe leen ordre lii waxal sa kii bi ne ko bàkkeel lañ may fekk waxu ko. Mm-hmm. taal otoom dem yoonam. ñu arrêté la ne la fii amoon droit kii nga ne fële nga may fekk loolu kan moo ko ñëwee citoyen la comme tout le monde donc nañ waxante dëgg seen yii ñu nekk ni ay caaxaan la rawatina moom mii na bàyyi caaxaan yi waaw moom vraiment vraiment man daf ma bett ci wàllu politique billaay booy bi dafa mel ni ku ñu liggéey xool nga Pape Djibril tey xool ko nii rek ak démb dafa mel ni ku ñu xon quoi. xon ah donc eh, booy bi. waaw ah, changé na rek. xool ko rek. ay hmm. hmm? eh, alaaji ah, <laughs> Madou ngi noonu jërëjëf. Euh, Euh, dañuy euh, jeexale ak euh, moom Diomaye président mi nga xamante ne nii ci ay jamono invité woon nañ ko fii ci wall Walfadjri jëm ba tey ci problème bi Bougane nga xamante ne nii dana koy faral di def ñu xam ne nag lii lu yàgg la ñu xool ko ànd ak moo Modou juuf te dellusi mooy président Sonko xam nga ne am na ñoo xam ne amoon nañ publiquement kii problème ak sonku justement ça signifie que on n'a pas président Sonko n'est pas un rancunier vindicatif koo xam te ne day téye Mimi Touré exemple. bàyyil ma jeexal ci point bi parce que c'est extrêmement important. ci qualité humaine président Sonko. ñun Bougane par exemple bari nañu lu ñu am ak moom accrochage. te pourtant bu muy def tibbi tànkam ba mooy bi président Macky Sall deme ànd ak sa ordre de nervi la a ñuy bastonné. di def tournée économique. léegi loolu eh, tournée loolu du er <laughs> tournée économique. Mm. Bougane était là bi président gisee loolu daf ko wone ko Bougane dégg naa ne yow yaa ngi dans la zone nord fan nga nekk mu ne ko maa ngi Wuro Sogi mu ne ko ana président Macky Sall mu ne ko dañoo génn mais fii lañ nar a fanaan mu ne ko génnal. loolu dund ngeen ko moom mu doon wax ne loolu dund ngeen ko Bougane. oui parce que en fait. mu ngi xalaat ne am na lenn lu ko fa mën a fekk. lu ko ci mën a fekk lu mu ko yéenewul. parce que adversaire politique même au sein du pouvoir am na loo xamante ne tey bu ñu ko doxaloon tuuti rek ànd gi mën na am nu mu mel parce que Sénégal gii mais ñoo ko bokk. ni nga ma ni ma amee droit nekk opposition la keneen amee droit tànn pouvoir. Mm-hmm. mais warul virer à l'animosité ba ku nekk. mais noonu yi boo gisee li xew tey ak vidéo bi nga xam ne Sadat euh, euh, ban gis-gis nga am par rapport ak euh, kàddu yi nga xam ne moom Diomaye yëkkati woon na ko bi fii président Macky Sall di nekk te Bougane doon tibb tànk comme ni nga ko doon waxee. waa xam nga vidéo bi li tax ñi koy partagé li tax ñu di ko partagé jubluwaay bi moom ngay xool parce que am na xam sax dañoo yaakaar ni. nit ñi dañ koo partagé c'est parce que dañ leen di waxte leen président fu mu nekk euh, keneen waru faa nekk mm. noonu mais daf lay wan rek ne la euh, li nga xam ne moom lañu ñu séqoon mm. ak tamit li nga xamante ni bii Sonko yéene woon na ko yenn yi dal ko fa mm-hmm. yenn yi parce que jamono jooju mm-hmm. réew mi doyoon na waar mm. pëccaxoo na mm-hmm. Euh, ngay prévenir nit ki peut-être ci danger yoo xam ne bii yaa ko gën a solib gis-gis. moytu gën koo xam lu war a mën a am nga moytuloo ko. Mhm. parce que xamal ko ne ko yow yaa ngi politique euh, te fekk ne ki nga jàkkaar lool euh, moom li muy def doonatut lekk politique mais leneen lay def. Mhm. comprendre nga waaye nag dafa am man jàpp naa ne Ousmane Sonko dafa am benn mbir mu ko kiiwutoon est Euh, nekkutoon ni ñaar ñi peut-être du ñu ñaar waaye kenn lañu woon hmm. parce que loolu mooy li nga xamante ni parce que Ousmane ko doon jéem a moytuloo mais est-ce que nekkul topp ma. du ñu déggoo daal waaw du déggoo parce que boo deful ndànk loolu la mbir mi doon signifier topp ma la. parce li tax ma ne topp ma la mhm. mooy. ginnaaw après bi euh, président Macky Sall daanu ki koy weddil tuuma yi nga xam ni nguur gi mi ngi koy teg ci kaw nguur gi fi jóge Bougane la mooy weddi chiffres yi lépp loo xam ne wax nañ moo koy weddi mm-hmm. maanaam mooy wax ne li Macky Sall doon wax mooy dëgg te moo ñu doon wax bi fi Macky Sall nekkee ne li Macky Sall di wax du dëgg mais bi mu ñu koy wax boobu Macky da ko ko nanguloon c'est parce que yaa Ousmane Sonko te Macky dafa bëggoon lu dox ci digganteem moom ak Ousmane Sonko donc dafa doon créer ab faux Ousmane Sonko bugaan lii da ko topp bu yàgg foo usmaan Sonko bii mu nekk. Mhm. Sonko Bambey. waaw Sonko Bambey bii euh, bi ko Macky créer euh, mën nañ ko tuddee sax Sonko Fatick. bi Macky créer Sonko Fatick mi bi mu ko créé léegi ne ko deel dénoncé deel wax parce que comme que waa ji ay skandaal ak yooyu la doon def ñu topp ko léegi yow it deel génne ay scandale yoo xamante moom kii bu ko defee buur gaa yi teg la bopp boo gisee am na scandale yu bari yoo xamante ni moo ko doon wax mm-hmm. di expliquer tudd fi Mansour Faye ba mu porté ko plainte dal ci kaw Mansour fay et cetera mm-hmm. Mm-hmm. tey di wër naan tibb tànk waaw Macky Sall fu mu teg tàngal parce que boobu dafa bëggoon Macky dafa bëggoon mu dox diggante moom. Sonko ak moom. comprendre léegi Bougane bu ko Sonko wooye ne ko génnal foofu peut-être sax mën na jàpp ni dafa commencé léegi gën a yéeg moo tax sonk di ko wax ne ko jógeel foofu maanaam mission bi ñu ko jox mi ngi réussir. Hmm. moo tax ma jàpp ni euh, Bougane musul réeroo ak Macky. parce que li la koy wan li la koy wan mooy li mu doon wax démb yépp tey hmm. moom la nguur gii di wax tey te Bougane weddi na lépp lu nguur gi wax. ah mais est-ce que du intercoalition bi tax moo ko moom moom moom dafa nuuru di weddi moom day weddi. waaye hmm. dégg ah. te Bougane yi muy weddi. Hmm. chiffres yi nga xamante ni bi moom lañ wax. waaw. yàggul dara. yaa ngi dégg xam nga mm-hmm. fii la fi weddi ay chiffres. Mm-hmm. ba ñu wóolu ko. chiffres yi buggaan yor moom ba mën a tax muy weddi yan chiffre la. te même concerné bi sax xam képp ah. ku lay jox xibaar. bu ko neexee mën na laa manipuler. bugaan ci essence su jàmbur lay dox. mais même alaaj loolu laa ma ne la même ki mu ba muy niyee génnewul ay chiffres. moom mu ñëw génne ay chiffres ce que nekkul du moom tamit. day mooy da sacrifier rek xam nga politicien mag am na yoo xam ne du ko def da koy bàyyi ak booy. sacrifié ko xam nga boo xamut mën nañu ki man mës nañ ma fee jox ay dossier di ah. jox ma ay dossier yoo xam ne ay chiffres la yoo xam ne ñii dañ may fonto <laughs> pour nga ñëw dénoncé maa man kuñu sànq la ñuy wër non non boobu yàgg na de li ma lay wax di <laughs> li ma wax yàgg na de ay ah. dossier ay jox ay dossiers yi man de waaw nekk boobu sax nekkuma woon di def ay jàngat ak yooyu mais c'est pour te dire que politiciens yi comédie euh, imitation eh, imitation yooyu mais na leen jàpp gars yi façon kii bu nekk fu ne la ñuy jaar pour jéem a kii rek maanaam nañ coow dëgg réer loolu rek la ñuy def mi ngi mel ni dossier Azer yi nga xamante ni bi genn waaw ba léegi nii gars yi ko yor ah, gars yi dañ ko yor ci plateau yi di wëndeel mais genn wàll gi yëpp dañu am fu ñuy jaar rek li Ousmane Sonko ko wax keroog ne genn wàll gi dañ leen a fay ñu ci bari dañ leen a fay rek. Hmm. gëmuñ ci dara li ñuy défendre défendre xam gëmuñu ci dara. loolu moo tax gars yi di la wax ne la politicien opposition buy nekk milliardaire il faut hmm. l'éviter. Hmm. Waly Diouf Bodian ko waxoon waaw li Waly Diouf waxoon parce que maanaam médias yi dañoo ndóol bu mu ëpp dañoo amul dara. loo leen jox pour ñu protéger dañ lay dañuy ñëw. taxaw alaaji ba ma ngay wax di yàqal sa bopp. non di di di di di di euh, bañ sa bañ yow di di génn sa bopp loo xamante ne ni mooy sa honneur ak sa dignité ndax xaalis dépasse <laughs> xamoo ko dépasse njab <laughs> man na lu ne ngi noonu jërëjëf alaaji waxtaan wi am na solo loolu xanaa rek di bàyyi la nga tàggatoo ak euh, internet yi nga xam ne ñu ngi ñu doon bàyyee xel waa di joxante dig daje kii di fàttali Moodu ne ko tey la tey. tey la tey nga moom wax na ma pourtant wax na ma ko nee na ma soo paree rek ñëwal taxaw ma. <laughs> Moodu di ko daal. ñu ngi koy mm. nuyu di ko wax ne ko tey la tey. tey la ñett xamut waaye ñaar xam nañ. ñaar nañ macha allah na xam ni tey daal la tey. <laughs> tey la waaw macha allah ñuy joxante dig daje ñu ngi koy gërëm bu baax ñu ngi koy gërëm bu baax alaaj dañ koy comprendre liggéey bee bari rek moom Moodu Diouf dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko gërëmaale Abdou Top waaw tey la teg yow kay noppi bu may paree dem ni ko Moodu maa ngi nii <laughs> ak Abdoulaye Diallo ak euh, ki nga xamante ni moo di euh, Serigne fàll Gumba la nuy waat encore une fois Omar Ndeya Soyibu ak euh, Baye su kay na itam xam naa ma nga fa toog di ñëw suivre di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di leen gërëm bu baax a baax ci bàyyi xel bi nga xam ni yéen ñu ko doon bàyyi xel jox leen dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.